abonné daal diisul doo fay dara bësal rek bu ko defee loo ñëwati nga mën caa am jaaxle jeex na recette bàyyi kompaloo nañ ko Kaolack ba ne ko bu ko benn bitig lebal bàyyi kompaloo nañ ko Kaolack bañ ne doomam sax judd ñu ne ko du fi am bulletin de naissance sànni ko sa àll ba sëriñ bi di reere ba ci yaamar yaamar Njaay xalifa mu bàyyi loolu sëriñ Mamoun Niass yàlla na yàlla euh, euh, yéegal àjjanaam yu gën moo ko nettali man sama nopp ma dégg ko yaamar yaamar Njaay yaayam ci boppam nettali ko ma dégg ko wax ma ko man mu ne ma sa sang bi de mooy xalifa mu bàyyi ñes bi mu juddoo dañuy dem di ko bind meeru sa àll la doomi bàyyi ñes yi ku ñu xam ne taxase ci bàyyi ñes ba lañ lay sànni ndoo faa nag mu leer ne bu ne ko ne bàyyi la maire wax na koo xamante mun naa màgg ba jiite maire oh. ñu koy xayma këyit kooku màgg na ko doon meer kaw jërëjëf Baye Niass jërëjëf Baye Niass gisuma Baye bi ñu koy wax waaye xam naa ne nee na ba bëñ ji di génn ndeysaan mu ne koo xam ne ñu ngi koy xañ bulletin de naissance ah moom yaakaar naa mën naa màgg ba jiite maire bi de mu màgg ba doon maire kaw moo tax nit ñi naan maire bi day fondu maire bi liggéeyul kaw la ma ne ko yéen maire bi jóge ci asal nga naan nay liggéey taw même fi liggéey taw kii di kii walu yàlla xamul sax lu ngay gidi moo tax man affaire xale bi mosuma parce que dama xam ne coobare yàlla ngay ko fi teg mu neex ni ñi mu naqari nit ñi dana doon mer kaw la kumpuloo Cheikh Ibrahima Niass képp ku dund Kaolack di kilifa aada wala ngay bileejo xaw ma tukuloo rek xam nañ bileejo ngay ceddo man sunguf wala fas-fas wala ay yax bàññes mooy sa noonu barke bàññes bàññes mooy sa noonu ngay jullit ak ngay ceeb bàyyi gis mooy sa noonu muy reere na samaani yettal ko wajjin xayra mu kaddari aw ko wa abtu daiman lan ko kammata amul dara lu jaral sama giiru dund tal ko wajjin xar kanam bu leer rek la ñuy gis aw damay xëy di gontu fuñ ma gëm ak ma gëmul fuñ ma bëgg fuñ ma bëggut kenn du gis xar kanamu Alaaji Ibrahima Ñas si bon ndax liñ ko wax ndax liñ ko def ci bi déedéet déedéet ñu ne ko bàyyi lu tax mu ne taraktu kullu ma uy rim lépp luy sama dindew doon naa ko ginnaaw ba mu des nag waaji muhammadu rasulullah mu ne ko bi ma desee waaji rek ci saa si la ma ne am nga ndam wa ura fawzi si laa gis sama victoire mooy tant bi moo tax ñun tant yi duñ ci dara depuis démb la 1921 ñun ñii ñaar fukki at a benn njoxonal lañ doon xaar njoxonal si ñu ëpp ci tante bi ñaar fukk ben bañ koy am njogonal nga doon régler ay bopp mburu lañ ma dagal sama añ bi amul ñeex geenu jël lañ ma jox lay ne yow ak xooñ xooñ lañ ma Cheikh ibrahim di kaw 21 ans yow ngi dox Cheikh Ibrahima Niass bi mu nekk ci daara ji la toog di tibb suuf naan njortu naa mbooloo bu ma topp moo xamante ne noox mi dund juróom-ñetti téeméeri at maa koy ëpp ñu ko topp. il est daara ji la dara xewul mu demaat tuuti neuf ans am lu mu def doxaat tuuti vingt et un ans Cheikh balaa vingt et vingt ans wéy na Cheikh Tidiane ba pare. woy na loolu basar woy na gàmmu bi pare yow boobu ay doganal ngay wër paa bi lay xaar ko wax non mayul ah? waaw waaw <laughs> loolu mais waxal séeréer bi wax. dama bëgg wax tuuti rek ci Saalum Saalum bi ñu xam ñu xamul ki ñu ànd la ñuy kan. arab yu bëri jarul dafa am lu def lu def yu gaaw yoo xamante ne boobu kenn ku nekk bu toogee rek xam ne kon sëriñ bi du sama mor. ma tax su may sant naa ma defal conférence ndaw ñi ak bàyyi ma ne leen déedéet bàyyi nit la du extraterrestre fëlul ci géej gi yaayam dakaa jur muy liir bu ndaw tëdd maam laa Hadj Abdoulaye Niass dugg premier jour. mosoo gis bàyyi ne yaay ji loo xam ci sa doom ji loo yaakaar ci sa doom ji mu ne ko na baax loolu la ma loolu la asu jànq wax na baax vraiment alaaji Abdoulaye Niass ne ko garanti naa la loolu jënd ne xool yu garaaw Baye Niass toog na doon doon xale ci zahir comme ñii toog maam alaaji Abdoulaye Niass boobu Baye amagul ay quinze ans yooyu xaaju guddi maam Alaaji Abdoulaye Niass ñëw yërlu léegi Ibra fekk Ibra new fi mu yaakaaroo yàqe yaakaaroo yàqe maanaam li ma yaakaaroon ci sëriñ bi kii di taxawaalu mbedd mi lu muy def mbaa Alaaji Abdoulaye Niass waaxu génn di xaar di xaar di xaar bis ne ko Ibra ma doon niitoo moo jeex ma ko ma ah, a doon kay loolu la a doon loolu la dugg gis parce mu indi daf ko xam kii mu moo wax ne moo wax ne man maay xalifa Cheikh Tidiane bi gën a kawe ci kawnu bi ñu ne ko lu tax mu ne man maay xotti yoon wi tey kuy Tidiane war a jëriñu ci Cheikh Tidiane ëllëg man maay xotti yoon bi ba mu koy wax baa juddoo wala baa bu juddoo ñetti at la am ñi ñi ngay ñi ñi ngay a taxaw di a maa xotti yoon wi gars yi ñun ñëpp ci yoon woowu la jaar xoolal la il est sûr de lui ñaar fukki at ak benn bàyyi si la taxaw ne faydu bii day dakk te xam nga lu taxaw wax ko benn xalifa bàyyam bu am 81 ans wala 91 ans 81 ans di commencé siisu bàyyi bind ko lettre damay tëj de sëriñ yi laay jox ñu waxtaan dégg nga bàyyi bind ko lettre ne ko Cheikh damay bëgg a dalal seen xel rek pour xam ne dara xewul solu leen lekk leen naan leen xool lu xool bég leen fii ñun kon guerre bi dañ ko a ba pare barke baa gis ñun guerre bi gañe nañ ko ba pare li ngeen bugg yëpp am ngeen ko bàyyi nee na man ragaluma ñàkk ci yéen damaa gis am di ñëw ci yéen ragaluma noonu déedéet jënd naa leen waaw jënd naa gaa bu yàgg dafa tukki ñu ne ko sëriñ bi liggéey yi bëri na gas nañ lii def nañ lii ne doo ñëwaat dañu bëgg doo ñëwaat bàyyi na ko fa xaftu alal mag noonu sëriñ bi dégg naa mbind bi liir naa ko waaye dama la bëgg a ne dégg naa ci làmb ñu ko fenn lu yàlla bind mënaluma dara yalla jox na lu ëpp sama ati bàyyi waaye maa ko wàññi bu yàlla namul woon ci man dund gi yaakaar naa man du ma ko demandé dégg xoolal loolu gaa yi xaw a jaaxle mu ne walaa yahumu ko ba amru qawmin qad kubitu wa dumiru wa ra'isul qawm qad khalfa mu ne ko bu leen tiit kuréel yi cëppi cëppi yëpp yëpp yëpp yëpp te du ñun mu ne damat naa leen dëpp naa leen waaja leen jiite bu dee buy wañaaru wàcc सिबाराम ने किला कला शिविर बैठम नाम जय हे दिला मायार उलवर हमार श्री पराम ने किला कला शिविर बैठम नाम जय हे दिला मायार श्री बड़ा अमाई बाटम कुन बुझबे कुको वेति इब्लिस गया कर अंग्रेज अंधा भानो बन श्री बड़ा samawut mulkut kila ka wow ay weddela da may war sire bara amay ngay wu góor wi jox ci biir xaaf yi ku loo soo daan nañ ñu yërëm wax ñu ko doon bàyyi هو رمز عزتنا شنو السيمبول تاعك تاعك ما شاء الله Thiel dañoo gagné Thiel bu yàgg. dañoo gagné guerre bi bu yàgg ñu nekkul ci guerre barke baa ngi. nit yi la Alaaji Ibrahima Niass nekkoon te mosoo gis xar kanam soppe kaw bam daj képp ku yàlla may kàttan rek bàyyi si mooy sama muy rey rek muy rey rek ndax xam na li ko Cheikh Tidiane jox. xam na ko ñu ko yonent yàlla Muhammad jox te duñ tàqale ko moom waxtu wu jot bàyyi moom ci boppam njàngaleem Sénégal da kaa soxla tey njàngaleem barke la tey njàngale Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ma bàyyi bi nga xamante ne nekk feneen def gis noonu déedéet al insaanu kaamil saalum saalum bi Sénégal bi kaw la kuwaa Tijaan bi jullit bi Sénégal la ko soxla tey tey buñ toogee ba tey fi mu toll nii Sénégal buy football ñuy yaakaar ay xërëmkat dëgg-dëgg ñu ngi bëgg a wàcc suñu yoon ñu Sénégal bu jaaxle woon dañ naan imaam yi ñaan leen borom kurus yi ah sëriñ bi ñaan leen de ah wax leen jàkka yi bu ñu demee ba bu Sénégal gisee kenn xalaatul jàkk kenn xalaatul sëriñ si kurus yi kenn xalaatul jotaayu wasifa yi sëriñ bi man damaa tiit musiba mu ngi bugg a am ma ngi leen di wax nag sax seen sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñëpp xamoon nañ am nañ ay jinne waaye fan ngeen dégg bàyyi bind mës a jaaxle yónnee ci jinne fan ngeen mës a gis bàyyi jaaxle ne Thierno ne ne ne ne ne Serigne Aliou Cissé wala Thierno Hassan dem wala mu ne euh, euh, Thierno Yahya Ali demal ba ci jinne sàngam sam horis wala nangam musul am bàyyi fu mu jaaxlee demal ba ci Cheikh Tidiane wala demal ba ci Mouhamadou Rasulullah ndax sëñ bi ñu ñu ngi bëgg wàcc suñu yoon de waaw bëgguma guddal ndax soo ñëwee jotaay yaa ngi fekk ay kilifa te jotaay bi nee naa la bu ñu daje woon rek ñun ñëpp ñu jóg te bàyyi tax war nañ ko defal Cheikh Ibrahima ndax da'awtu rabbi an yaquma hadi kulla wara lii yëpp moo ko ñaan ñun duñ ci dara boo demee ba Nigéria fu mbooloo am muqaddam ba nag naa yaakaar ne sunguf si la baa mu yaakaar ne kii ndox baa mu yaakaar te xam ne yow ñaan nangu ci nga toog ponkal yaa ngi lay jam lu yi mu xamul ngeen koy sànni ko nangu njur moo ñu indi te ñaan ko nangu ci lañ toog te xamal waaye nag tur yàlla yi ay jaamam yàlla yi ñu war a jaamu ci ñoom la waaye nekkut ne ñoom dañoo dox suñu digganteeg pépp yàlla bi ah ah ndax nit ñaan ngi tur yi ci yàlla bàyyi dox suñu digganteeg pépp yàlla tur yi doxuñ suñu digganteeg xaqiqal muhammadiya ahmadiya ndax nit ñaa ngi ko yor te xamul yàlla àgguñ ci yonent bi àgguñ ci Cheikh Tidiane kon ñun bàyyi dox suñu digganteeg ñooñu waaye du tur yi nit ñaa ngi tur yi te ñun li ñuy def defuñ ko. kon bàyyi dox ci suñ dund bi loolu dama bëggul ñu delloo màtt mi daal waaye nag tur yi duñ ko fi dindi sunguf seeg reen yi ci la bokk ndax lii jëfi yàlla la xam na dégg li wax lii ay wax yàlla la te yaakaar naa aarif bi laa bi war na kaa mën a jëriñoo ndax benn jour damaa toog di xaatir di xaatir pour ma damaa toog yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-ce que mën naa ko wax sax déedéet xam parce que waxu seer yàlla ci déedéet léegi ñu TikTok la coxo coxo yi ci àdduna bi maanaam na noppi sax dégg nga léegi moom dama maañ léegi sérieusement léegi tàkk dëgg la. ndax yoon wi léegi ñi ñi ko mën a dajale ñu dajale te ñun defar rek ñu tax a Cheikh ñi mu wëlbu ci kaw bi Sénégal mu tuuti Cheikh Ibrahima bu demee ba maamu di ko soxla ñun war nañoo laaj kan mooy Baye. barke Baye Niass maamu soxla wuloon Baye ndax islam déedéet du julli ndax arrêté déedéet insaan yi dafa toog ba ci yàlla mu ne li ko yëm ci moom dafa dégg-dégg àdduna dund bii dund day kon taalibe Baay fépp lañ ko war a soxla fépp buñ jiitewul kenn warta jiite ànd ak sax war ta bokk ci ñuy saaga seen président réew man maa ko wax taalibe Baay bu ci bokk ndax Baay mosu ko def ñàkk jubóog sa réew Baay li mu jubóog Senghor bëriwut te mosoo leen dégg mu saaga jamono Oustaz Braham Diop nettali na bi Senghor di jubóo ñàkk jubóo Baye Niass dëgg Baye Niass Senghor taf ko jël sëriñ yëpp defal leen privilège taf Cheikh Ibrahima Niass bu bàyyi duggaan Kaolack ñëpp di ko teeru nee teeru taxaw ci naaj bi teeru ba Senghor romb mu dem këram te heure boobu sequl dara waaye dafa nangul yàlla ci liy tëjliyaati yàlla yi. Baye Abdoulahi yàlla mosu mosu ko feeñu mu xam nga dégg ngeen fi may wax. te billaahi bu xolam tàngoor ci Senghor ñu faxas ko ci kaw ndax xolam yàlla bi la yor te li ma wax xam nga sëriñ bi nit a ngi cëppi cëppi sa kanam te boo meroon dama faxas ko ci alam waaye boo mer parce que xolam yàlla bi la yor da nga koy yërëm pour génne pour génne ko ci foog ak yaakaaram gi mu nekk bàyyi daan na taf Senghor na ko taf yónnee nañ mbooloo ne nañ jëli bàyyi doomi bàyyi boo xam ne am naa ko nguur gi problème du ma tudd turam ñu ne na ñëw bàyyi ne nañ ko làq mu làqu ci biir demal ñu enquête enquête mu nañ ko gis ñu bind lettre Dakar ne jëli leen bu baax bu bu bu doomu ñëw jëli leen jëli leen bàyyi maanaam ñu jëli bàyyi eh. maanaam ñu jëli bàyyi indi ko Dakar nga def koy tëdd maanaam ñu jëli baay dégg ngeen foofu ñu jëli baay moom la ko foofu jëli benn Cheikh Aziz Fale rek mu ñëw benn si la loolu loolu sax jël nañ ko dee waaye la xaw xam ngeen ko la xew xam nañ ko bi ñun ñëpp fan yi dañ jël ci taalibe ñu waxtaan incha allah saalum bi ñun ñëpp ñu indiwaat bàyyi jabar ya bàyyi taalibe ya bàyyi noon ya bàyyi buur ba bàyyi nangam ñu xool lan lay def te xoolu ñu ne ñu des attaque maanaam Tidiane nee na nga góorgóorlu ba nit bëgg bàyyi doy la jaam yàlla mu ne képp ku yëg ne rékkeeku na taalibe bàyyi yëg nga ne yow yëg nga ne rékkeeku nga oyof nga nee na demal ñu waxtaanal la bàyyi bu yees lu ji nga fa nga nekkoon nga yëg King Baraya mooy King Baraya yii sew la sëriñ bi nee na ku dem ba yëg ne retiré na bul dem yeesulu ji demal ñu la ci Cheikh Ibrahima Niass ahut laahut malakut jabalut ci yooyu sax bëri nañ dem waxtaanal la bàyyi ci insaaniyatam ci yaram ci tegginam ci mbaaxam ci tabe ci yaatoom ci muuñam ci respect ci fonk nit ñi ci yamale ñëpp ku ne am seize bu rëy ci xolam bi wal ummatu qasdi fihim am asuqahum ila xadratil bari rahim ilahina nit gënu kaa doon nit julit gënu kaa doon julit tijaan gënu kaa doon tijaan sénégalais gënu kaa doon sénégalais xam nga ne bi ñuy teg grande mosquée sax Sénégal di natt sëriñ sëpp di natt ñii vingt cinq mille lañ joxe ñii dix mille ñii joxe cent mille bàyyi ñes un million cinq cent la natt natt grande mosquée un million cinq cent la bàyyi joxe ñii vingt cinq mille ñii dix mille ñii cinq cent mille ñi gënoon góorgóorlu ñoo joxe cinq cent mille bàyyi dem un million cinq cent triple buñ fi doon joxe ay addiya shérif bu bàyyi joxee shérif bi doy ci zahir sax kenn raw waxatuma nag li mu def ci xolu jaam ak yàlla yi kon dafa des bu fekkee am nañ ko gore nañ nañ bàyyi wax ci te ci bàyyi hmm. ndax fi mën a yóbbu nit ñi bàyyi nee na lu gaaw waxi kenn mënu faa yóbbu kenn mbay nee na du sàppi fi mën a àgg ci xolu doomi aadama bi waxi kenn mënu faa àgg ndax mooy faj nit ñi mooy faj nit ñi te moo ko liggéey yàlla mbooloo bi ne bëbbandoo ñëw ci bàyyi moo ko liggéey yonent bi Tijaan yi bëbbandoo jëm ci bàyyi moo ko jubal moo ko liggéey fi Sénégal toll tey rayante bu bëri bi sosalante bu garaaw gi ci télé yi internet fay la rek pour sos nit ñu may la visa fay la rek pour benn 4 millions nga yàq dundu jàmm dundu doomu aadama jigéen ñi perterloo gi sañ-sañ gi ñeme télé yi futteeku gi ci télé bi futteeku gi ci internet bi ñun bu tukki woon ñëw dañ naan est-ce que Sénégal la ci benn 5 ans ana chef religieux yi ana nitu tariqa yi noppi gi noppi yëpp li ñuy jël si nguur gee tax rek moo tax ñu noppi muy Medina Baye feneen laa wax man ci Medina Baye laa njëkkee wax noppi gi noppi yëpp li ñuy jël ci nguur gee tax ci kaw te nguur ak Baye gi moom yéen xam ngeen ne dépassé na Sénégal Imam Hassan de alhamdulilah Serigne Mamoun de alhamdulilah Baaba Lamin bii alhamdulilah alhamdulilah te xam ngeen lu tax ma ne alhamdulilah moo tax nag toylu ci boppam ci li ñëpp war a dee yàlla bu bindee ne di nga am ak oto di nga am de kër di nga ko am de lu mu bind da ko am waaye deseg sa dignité moo des tey hmm. moo tax baax li ne kurus xam nga mooy lan rus naa def lii naa ñu déggal ma lii rus naa ñu fekk ma ci lii rus naa lii rus naa lii loolu mooy kurus. yes waay léegi boo kurusul nekk ci loolu neex nit ñi duñu rus a jéggi sa kurus gi def la lu leen waaye gis nga boo kurusee <laughs> amul yàlla di bind mu jéggi sa kurus gi fekk si philosophiquement waaye Sénégal tey fi toll sañ-sañ gi nit ñi am. surtout jigéen ñi surtout jigéen ñi surtout jigéen ñi ñemee taxaw saaga wali yàlla ne man la maa ngi nii loolu man man man xaw ma ku ko ragalul man ragal naa la ñun nag ñun ñoo dese njàngale yi pour ñu xam ñi ñi saaga ñooy kan même bu sa mbokk taxawee far fële ñun faruñ ci kenn ñu bàyyi sa bàyyi sa kenn far ñun faruñ ci kenn man de alhamdulilah faruñ ci kenn ci bàyyi rek laa te wallahi buñ toogee ci bàyyi la yàlla ak yonent beeg Cheikh Tidiane yi joxoon de dégg nga loolu rek la ñuy am bugguma gudd abonné daal diisul doo fay dara bësal rek bu ko defee loo ñëwati nga mën ca am jaaxle jeex I yaay ci ko and kaay them up on abonné